واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح أفضل الأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد بك بلغي نيسانت يالله di julli ci yonentam bi gën di mbindéef sallallahu alayhi wa sallam di fàttali suñ bopp di leen fàttali dénkaane borom bi jëm ci mboolem ay jaamam te mooy nañu ragal yàlla loolu la yàlla dénkoon xeet ya ñu jiitu woon moom la dénk ragal yàlla bokk na ci xaayaat yi tax yàlla wàccee ay téeréem yebal ay ndawam digle ay ndigalam tere ay tereem jullit bi war a yittewoo lépp lu koy xacc jëmee ku ci ragal yàlla boroomam lépp luy laabal ab xolam di ko fàttali sunu borom subhanahu wa dafa bokk ci farate jullit bi mu yittewoo ko bokk na ci lii xëcc jaam bi di ko musal ci ak texee di ak xol bu wow muy bàyyi xel bés ak waxtu yu màgg yi nga xam ne ay nafaxaat la yu yàlla ubbil ay jaamam ngir ñu mën ca góorgóorlu seeni yiw di fulu borom bi di leen jéggal seeni rëcc rëcc bés yi ñu toll nag di fukki fan yi njëkk ci weer wi di weeru tabaski yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na leen lool ba wax ne maa min ayaamin acdamu inda allah wa ahabu ilayhi min min al ayaami al ashr amul bés yu gën a màgg fa yàlla amul bés yu yàlla gën a bëgg ku ci jëf-jëfu yiw fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski bés war naa soññi jullit bi ci lépp lu ñu daan jaamu suñu borom mu waaye lépp lu nekkoon ci moom ci càggante mu wattandiku ko jéem a tooyal ab xolam jéem dundal ab xoloom ci topp yàlla borom bu dul loolu rek nit day ne ci kaw suuf di dund dund bahima nekk ci yittey boppam rek fàtte yàlla boromam ba ab xolam wow alquran borom bi joxoñ na aw nit ŋàññi leen ci wow bu seeni xol wow summa qasat qulubukum min ba'di dalik fa hiya kal xijaarati aw ashaddu qaswa seeni xol wow naa wow ba gën a wow ay doj waaye wax na it ne mbugal mu metti mooy xaar ñi seeni xol wow ca safara wal iyaadu billah ab xol nag bu woowee la koy tegtale ci cër yi lay feeñ maanaam nit ki li muy wax ci làmmiñam bi ko xool ci ay bëtam sawar koo déglu ci ay noppam ay tànkam sawar a dox jëm ca ay loxam sawar koo laal loola mooy tegtale la ca xolam in xayran fa xayr wa in charran fa char saabu nit ki yittewoo jàng alquran di bëri lu muy tudd yàlla di déglu alquran di déglu wax yu baax di déglu xam-xam yittewoo dox jëm ci jotaay yu baax yi yittewoo jaxasoo nit ñu baax ñi di góor-góorlu ci jëm jëf yu baax yi loolu mooy tegtale xol bu ragal yàlla mooy tegtale xol buy dund ci leer yàlla bu safaan bi amee rek safaan am na maanaam doomu aadama booyal aw làmmiñam ci wax yu bon sawara déglu kuy wax waxi neen déglu ay caaxaan ak way gënal ko déglu alquran ak wax ju baax dox jëm ci jotaayu texee di di teew ca jotaayu texee di gënal ko jotaayu yiw loolu li ñuy tegtale mooy xol bu wow ku ne xam ne nag jamono jii nu toll bari na lool ci nit ñi ñoo xam ne ci seeni wax ak seeni jëf dëgg-dëgg mi ngi wane xol bu wow bu nekk ci seen biiru yaram loolu moo tax ngeen mën a dégg yu bari yoo xam ne ab jullit war na koo jombalee génn ciw làmmiñam di gisit xew-xew yu bari ak jëf yu bari yoo xam ne dëgg-dëgg ab jullit warutoon a xalaat ak jëf mu ni mel mbokk yi xam ngeen ne réew maa ngi dugg ci ay fitna yoo xam ne ay alal ci yàqu ay bakkan nañ ciy faatu ay nit ak ci ay jafe-jafe yu tar te la leen koy yóbbee yépp mooy nit ni ñoom nit mooy jàkkaarloog moroomu nitam di faat bakkanam wala di taal këram wala di ko dóor di ko mbugal mbugal yu jéggi dayo te mën naa am sax deful lenn lu ko war a teg ay daan loolu yépp mooy wane xol boo xam ne rek wow na te loolu ni mu feeñee ci réew mi njëkk réew mi feeñ na ci réew yu bari doomu aadama ba mu nosoo ci kaw suuf di dund ci kaw suuf tënku ci ay àtte am kilifteef mu xam ne bu wàccee yoon yoon dal ci kawam loolu yaram nañu bari ba ñu ngay góor di wattu di ko yu bari waaye réew yoo xam ne demoon nañ ba seeni nguur daanu amaatuñ nguur bu am doole gu dëgër gu mën a saytu seeni mbir lafa daan kaw ci ay rayante ak fitnalante ak yàqalante ak jëf yu ñaaw yu jéggi dayo wane na ne ñooñu buñ dee ay jullitit dëgg-dëgg lislaam moom dundul ci seeni xol loolu nag mel na ni suñu réew sori na lool ci ay jéegu ci yu ni mel te ñu bàyyi xel ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala aji xam la joo xam ne dara du kumpa fi moom raqib la amul lenn lu rëy wala lu tuuti lu sori wala lu jege luy xew ci suuf lu dul mi ngi xam lépp di xam la ko sabab te kenn ku nekk xew-xew yi la cay sa wàll suñu borom dana la ko xisaab ndax laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi samaa yàlla dara nëbbuwul ci moom ci liy xew ci kaw suuf dara nëbbuwul ci moom ci asamaan wala lépp luy xew ci diggante ay jaama kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ne fitnaag lu am réew yëngu-yëngu du tee kenn ku nekk la cay sëb cër rek sa xisaab ak lay xaar koo xam ne yaa ngay woote jëmee ci fitna yaa ngi wax wax juy taal ak a xabbu fitna loolu la cay sa masuuliya mi ngi ci sa kanam sa diggante yàlla sa boroom ku toog ci sa bureau di signé luy waral fitna wala ngay àtte luy waral fitna wala ngay joxe ndigal yu jëm ci fitna na la wóor na lépp rek sunu borom ku xarañ la te ku xam la mbirum ay jaamam xisaab ak ci sa kanam te yàlla ku maandu la ci tooñ yi nga xam ne jaam yaa ngi koy tooñante ak xàq yi ñu yenulante ba lépp rek dana ko xisaab ba xisaab sax jaam yoo xam ne takliifut leen woon wa yaqaul xisaasu na jamaa boo wa bayna qarnaa li adlin samma li ko sëriñ bi waxee ca tadud sixaar radiallahu an kon mbokk yi nañu ragal yàlla te xam ne ay jullit lañ ab jullit du boyal aw làmmiñam lu ko neex wax ab jullit bu wéy ci xalaatu boppam ak bëgg-bëggu boppam lu ko neex def waaye ab jullit mooy kii bàyyi xel boroomam ak fu jamono mën a toll wattandiku lépp luy waral ak texeet yi te mooy rek yi yàlla tere rawat na yoo xam ne xaq yu muy amel moroom yi ay jaamam lañ te yàlla wax ci alquran képp ku faat bakkan yaa xam yaa jël gànnaay teg ci bakkan mu faatu wala yaa joxe ndigal la wala yaa sabab la waral bakkan faatu ci tey bakkan boobu nga faat di jullit amul ku mën a dox sa diggante ak safara wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa xadiba allahu alayhi wa laana wa aadda lahu adaban azima alquran nee na ku faat ab jullit te tay ko na wóor ne sag fay dara lu jahannam waaye na la wóor ne boo duggee jahannama dootoo fa génn na la wóor ne yaa ngi wëlbatiku ci biir merum yàlla yàlla mere na la rëbb na la préparé na la mbugal mu tar kon yaa ayuha alladina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat li xad wattaqullaha alamin وصلواته وتسليماته على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñuy santati borom bi subhanahu wa taala di julli ci ngën di mbindéef di yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam di fàttaliku wax suñu borom muy dénkaane bu jëm ci mboolem ay jaamam rawat na ñi wax ne ay jullit lañ gëm nañ yàlla yàlla na yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi ko gëm dénkaane bi ndigal li mooy ittaqullah ragal leen yàlla kenn ku nekk ci yéen it nay xisaab boppam jamono ju nekk di xool lan la jiital lan moo koy xaar ëllëg bu wuy jee boromam bésub dee bi nga xam ne mi ngi ci kanam ñépp te mu wóor ñëpp ne mi ngi ci seen kanam te ku dee rek fekk say jëf moo xam yu baax walla yu bon borom bi nee na wal tandur nafsum ma qaddamat li bakkan bu nekk nay xool lan la jiital lan la def lan moo koy xaar ca bàmmeel lan moo koy xaar ca barzak buy wuy ji boromam lan lay yóbbaale yonent bi jàngale na bakkaar ak mooy yàlla dara baaxut ci waaye bu ta amoon lu gën a woyof mooy bàkkaar bi nga tooñ yàlla sa borom ameloo ci benn jaam xaq amma boo tooñee sa moroomu jàmm tooñ nga ko waaye tooñ nga yàlla sa boroom bi ko bind bind la tooñ nga sa bopp te xàq jooju yàlla dina ko jéggal mukk lu dul kii nga tooñ rek jéggalul la xàq jooju xàq ba xàq jeex nag la ca gën a diis mooy bakkan bakkanu doomu aadama alquran nee na ku góor góorlu ba musal bakkan bu daroon a sànku am nga yiw jëf nga jëf ju mel ni dundal nga nit ñi ci kaw suuf ñépp waaye ku sàggan ba faat bakkan ak noo ko mën a faatee ak loo ca doon ak noo ko ca doonee lu mu nëbb nëbb wala mu feeñ na la wóor ne sa bàkkaar sa ñaawteef mooy rey nga mboolem nit ñi mas dund ci kaw suuf ñépp loolu lu mat di bàyyi xel la lu mat a wattiku la te ñu bàyyi xel ne du lay dama jot ndigal du lay lépp loo mën a xalaat def ko aw lay ba gis ne war ngaa mën a tuur deret nit loolu wax yu seytaane la buy daw ci xolu jaam bi nar a saw waaye du benn lay bu nit mën a am ci kanam boroomam jàkkaarloog nit ni moom di ko faat ci tey wal iyaadu billaah yemul ci faat waaye lépp luy waral fitna luy yàq dundub nit ñi ci jëfi doomu aadama doomu aadama biy jëf loolu na ragal yàlla boroomam ku ne xam na ne jamono ji ñu bëree ngi dund jafe-jafe yu tar ci ñàkk loo xam ne nit mënu koo ñàkk ci kaw suuf mooy am ndox am ndox jafe na lool yàlla xam na ne ñàkkul moos tey jii ci dëkk bii ñu bari ñu war a jóg julli ji jumaa war a sangu waaye ndox mu doyul tax na dañoo jàpp dem julli ji loolu nag képp koo xam ne doon nga dara ci ak càggante wala ci ak tayeef dénk la liggéey buy sàmm ak di saytu ndox ba nit ñi jot ci nam gën a jaadoo nga topp sa bëgg-bëgg luy feesal sa poche ba tax nga gàllankoor nit ñi wala sa càggante wala yéene jooja mën a am na wóor ne yaa ngi yenu ay xàq yu diis waaye yaa ngi jaami yàlla yi loo xam ne mënuñ koo ñàkk ndox daa bokk ci matière yi nga xam ne mooy dundal lépp luy dund comme ni ko alquran waxee ci aay yu bari kenn ku nekk ñun xam na ne doomu aadama ba mu nelawee ba yeewu la mu njëkk njëkk soxla mooy am ndox bu bëggee jaamu yàlla boroomam jaamu ku mel ni julli la muy njëkk njëkk soxla mooy am ndox mënta tàggoog moom guddi mënta tàggoog moom bëccëg kon képp koo xam ne yaa ngi jëf luy sabab xañ nit ñi am ndox rawat na di ko defee ci dëkk bii te wax ne ab jullit nga wala ab taalibe nga na la wóor ne daray àdduna jarul lii boo doon def lii di ci jëlee palteef gu lay yilif loo àdduna ci biiram jaru ko rawat na ay dërëm yooyu def ci sa poos te lu yàggul dara léegi nga tàggoog moom mu dem bàyyi la fi wala nga dem bàyyi ko fi yóbbaale bàkkaar ak xàq yu diis loolu lu mat a la lu mat ragal yàlla la kon ñu ngi fàttaliwaat xaayaat yi nga xam ne moo taxoon suñu borom digal nu ñuy julli digal nu ñuy woor digal nu azaka ak xaj makka ak jàng alquran ak saraax ak jokk ak mbokk ak mboolem jëf yu baax yii lislaam di soññi jullit bi ak mboolem safaan yi bi tere jullit bi di ko wat la tax a jóg mbir ma rek mooy jaam bi xam ne moom jaamu yàlla boroomam la ragal yàlla boroomam yàlla mi nga xam ne koo ko ragal ragal gi day tax nga gën koo jege day tax nga gën koo bëgg ragal gi dalay puus ci nga daw jëm si ci moom safaan ba mooy leneen loo war a ragal rek bu dul yàlla ragal ko dala koy soreloo day tax nga daw waaye ragal yàlla si borom moo lay jégaloo yàlla mooy tax yàlla bëgg la te yàlla bu la bëggee boole la ci jaamam yim gërëm boole la ci ay xejam bokk na ci lii dimbale jullit bi ci loolu yi nag bëri tudd yàlla boroomam rawat na ci bés yu màgg yi ak waxtu yu màgg yi rawat na di bëri julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko alquran diglee ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ca xadis ba ne ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukk kon aw yiwu réeréy la jullit bi julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam boroomam di julli ci moom allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad warham muhammadan wa ala muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi laalamina innaka xamidun majid salaatan tunajjina biha min jamici alahwaali wal aafaat salaatan taqdi lana biha jamic alxaajaat salaatan tutahiruna biha min jamici sayi'aat salaatan tarfacuna biha cindaka acla darajaat صلاة تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات